ilaha la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah ñoo leen di ziar kenn ku ne sa tur ak sant di jàmm tey nag ñoo ngi fii kër Serigne Cheikh Ndigal Fall toog ak ci kenn ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Talla Fall Serigne Talla tubaarikàlla macha allah ñoo ngi lay siyaare bu Serigne Cheikh Fall bàyyi bu góor moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina Serigne Talla ñoo ngi lay siyaare bu baax te di la nuyu ñun waa euh, jotaayu Géew Ndaanaan yi suñu émission 28 pro tubaarikàlla macha allah Serigne Talla ñu bëggoon a xam Serigne Talla Fall lu sabab euh, ci biir weeru koor yi yóbbu nga ko. waaw wasalaamaaleykum. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama waaw daanaka de wax ji moom du gudd ndax lii moom lu ko sabab ku ne xam na ko ndax ndigal la loo xam ne Serigne mu daan ko def mu togg ndogu yi waaw loolu yàlla moo ko di moo ko njëkk a digle wóor ku ne dañaa war dafa wax ne da ngaa war a leeral kuy kuy woor nag ginnaaw wóoruñu sëriñ bi digal ñu ñu togg ndogu di yéen ñuy woor waaw loolu nag ci la Cheikh Ibrahima Fall ne woon mu ko wóotu woon ci la nekkoon ba jóge fi Serigne Cheikh Fall Baye Góor nekk fi di di ko doxal na mu rafet na mu gën a ba jóge fi Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Fall Baye nekk fi doon ko doxal ba jóge fi Serigne Cheikh Ndigal nekk fi yàlla ko yàlla eh, guddal aw fanam di ko doxal di ko doxal eh, teewaay bu rafet. waaw wax dëgg yàlla mu ànd ko ay rakam comme ni ko waaj waxee sëñ Cheikh Mbacke mi doon ñëw nañ ci kër gi di doon sëñ Cheikh Fall Baye si yàlla ñëpp njaboot sëñ Cheikh Fall Baye Góor ñu ne ci ginnaaw ko sëñ Cheikh ndigal di déglu ndigal te di ko jëf maanaam Baye Fall bi képp koo xamante ni si defar nga ay ndogu rek xalifa général ku lu murid nga ko yóbbul waaye ñu gis ni waa kër Serigne Cheikh Fall Baye Góor waral waaw loolu dafa yàgg ndax Cheikh loolu ñu ko ñu ngi li ci ndigalu sëriñ Modou Moustapha Fall bi nga xamante ne bii sëriñ Modou Moustapha Mbacke jóge na fi dafa dem ci sëriñ Fallu daal di bàyyi ab taawam boole ko ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ah, mu nekk fa loolu moo waral ñu gis Daaru Xudoos ba dëgër ni waa ci ndigalu sëriñ Modou Moustapha Fall ci lañ fa toogee daal wax dëgg yàlla loolu waaw fii moom jaaw fas ma fi moom ñi fi nekk daal moom mooy ñi nga xam ne ñu ngi déglu ndigalu sëriñ bi di ko jëfee combat waaw loolu daal ñoo ñoo ne fii waaw loo gis lu ne dafa am ñoo xamante ne bii dañ cee bokk am ñoo xamante ne bii dañ ciy bokk bokkul waaye ñi nga xamante ne bii daal bokk nañ bu ko bàyyi ba ndigalu sëriñ bi jeex yàlla nañu yàlla bale si ñooñ ci yooyu nañu sàkkoon nee naa leen yi soppe am di jàmm yi comme ni leen ko waxee rek saa su ne noonu lañ ko defee tubaarikàlla masha Allah suñu émission jotaayu Géew Ndaanaan fii ci 24 Pro yéen a fii ci sëriñ Amdi Fall ci ki moom Serigne Modou Moussa Fall moom Serigne Cheikh Ibra di jëwriñ ci sëriñ Cheikh Fall borom ndigal ñu ne fii nag ci ndoguy Cheikh Ibra yi waaw ñu leen di siyaar bu baax kon ñu déglu sëriñ bi rek mu sànni ay kàddu sant waaw sëriñ am di Fall ci ki ñun ñu déglu ko. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakatuh euh, bokk julli di bokk taalibe ñu ngi leen nuyu leen jaajëfal. leen jaral ak cant ak ngërëm bi ngeen ñu fekkee ci jàmm di ñaan sunu borom euh, yàggal fi suñu Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mouride ba naal yi yéen ci yoonu maamu yàlla eggale ko naka noonu nag sëñ di koy wax di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëm Fall xalifa xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall ba fi yàlla yàggal ko wér ko ba yi ak mébét yi mu ci yoonu maamu yi naka noonu di ko ñaan suñu jëwriñ ji muy sëriñ Cheikh Ndigal Fall yàlla eggale ay mébétam ci yoon wi ak na mu ko bëggee ci darajay maam Cheikh Ibrahima Fall maamam euh, di ko ñaanal mboolem njabootu sëriñ Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ak taalibe bi yëpp di leen xamal na ñu ngi ci liggéey bi ndog yi moom ah ñu ngi nii rek moom at mu jot nii dañu ko jàppoo day jëm kanam waaye lenn lu ci dellu gannaaw nekku ci saa su ne ñu ngi gis yokk gi muy di gisit Euh, gisuñu ci leen lu ma yàlla kese rek na ko Seex Ibra doon defee rek noonu lan si nekk nii kër Seex Ibra yaatu na foo ci demit dangay defe defee ne fa la Seex Ibra nekk ndax saa bu weeru teroo euh, ña nga ca liggéey ba di ko def na mu waree lañu ma nag lañu mun lépp ña nga ko ca ña nga ca gis nga taalibe yaa ngi nii soxna yaa ngi ne ca waañ wa ña ngay togg ak a ci kanam tuuti ñu yanu ko yóbbu ko kër Sëñ Tuubaa jébbale ko kon nag euh, ñuy sant baax rek Euh, di ñaan yàlla sunu borom daje ci ngërëmal sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ca it moom ak yokk rek lañ ci gis. ak waaw ba tey mooy li ma la wax ci ci ci yaatal yaatal gi rek lépp sëriñ Tuubaa la rek déggoo ni ma ko waxee léegi ne la buñ ko liggéeyee ba noppi dañ koy yóbbu kër sëriñ Tuubaa kër sëriñ Tuubaa fi nekk ni ëttub sëñ Cheikh Mbacke boobee ba moo tax ma ne sëriñ Tuubaa muy mel mi rek ndax euh, la ko waral mooy euh, féete nga xam ne sëriñ Cheikh Fall baay góor bàyyam séddee woon na ko taawub sëñ sëñ sëñ Cheikh Fall Baye Góor di di taawu sëñ Mourou Moustapha Fall sëñ Mourou Moustapha Fall teel ko boole taawu Cheikh Mourou Moustapha Mbacké loolu rek mooy li ñu bàyyi Daaru ba fi mu nekk nii ci sëñ Tuubaa moo ko bëgg noonu ndax defe naa lépp bu àndoon sax yanondoo tegandoo fa du xàcc biir kër ga moo tax daanaka foofee ñu ko yàqale daanaka yàqale leen ko ci ëtt ba rek waaye benn ëtt la ñaari ëtt yi du ñaar benn la ñooñu ne moom seen bopp rek la ñu nax ndax yàlla moom alxuraan yu xaadiwoon laa wala seen amro a yaqdawoona ila anfusahum kuy nax yàlla defe yàlla ngay nax sa bopp rek ngay nax ñu kenn ku du seen bopp ndax euh, yooni moom defe naa ab sànja la àndal bala nga am lu naqare wala nga am mbetteel dëgg nag nga bëgg a jël sañ sañ bi sa jëloo sànja bi ndax fi nekk nii kum jëralut bàyyi la nga jàppoon ñëw ci liggéeyu Cheikh bi Fall bii boole ko loo la nga mën la nga mënut nekk ci ndax yëf yi ajuwul ci wërsëg rek fi mu nekk ka gën a wërsëg mën naa jël pee li lii ñu liggéey ka gën a bëri bëri wërsëg mën na see jël ndaare pas-pas ak ak dog rek moo ci am solo waaye ne bay Fall laa ca doxewoo ko yow Cheikh gi moom yaa koy tudd waaye moom tudd moom boolewul ci dana am waaw ndax ndax lay tax lay tax ñu bay Baye Fall ne doxewoo doxewoo ko kon euh, pëpp moom saa moom boo xamee gerte loo bay bay tool bi boo jëree. fokk nga gis pëpp gerte gi boo jëlee am gerte yoo xam ne dana naan ñum mel ne kéem a nga ca ca dara nekku ca boo jëlee mu dem ca ngelaw la waaw dugub boo ko booy bay booy booy buy door a sax départ ba bu saxee am na ñax guy wax jëmb dana ci saxaale booy booy bay da nga ko bay booy wol da ko wolle booy engrais da nga ko engrais waaye boo demee ba joxe résultat jot doo gis dara foo na nag ma nga fa mooy loolu rek pas-pas rek pas-pas rek bu pas-pas rek pas xasee yëkkati ci kanamu sëriñ bi nañ fi bàyyi ko noonu lañ fi dellusiwaat ba mu génn nañu jaajëf rek loolu la waral dong ngay nekkee ko noonu rek bu doon bu doon dem suba it li fee sëñ bi néew taal ay loxoom ñaan de su dee su loolu rek la ca buñ ko fanaa buñ ko defoon juróomi waxtu it day mel ne ñun waaw loolu rek la jërëjëf. loolu moom day lu yàgg loo xam ni ma nga tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di histoire ndax Cheikh Ibrahima dafa mës ñëw kër gu mag ci njaareem fekk fa Serigne Touba boobu fekk na weeru saxabaan wi am na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu war a séentu weeru ramadaan wi sëñ Touba woo Cheikh Fall ni ko dafa am gan goo xam ni de gan gu may teeru la te bëggoon naa su ñëwee nan ñu gàtt ñu gàttandul ma ko te teerul ma ko te teralal ma ko loolu rek la ko wax yam foofu. waaye bi ñu génnee bi ñu génnee la Cheikh Ibra Fall laaj sëñ Yaara Mbay lan la Cheikh lan la sëñ ko tedd ki wax mu ne ko moom dem Mbàkke dafa wax ni Fall dafa wax ni dafa am gan gu muy séentu boo xam ne bu ñëwee daa bëgg teeru ko te teral ko gan googu mu ne ko yaaram ndax xam ngeen gan googu mooy gan gan nee na ñu ne ko mu ne ko ñun de Fall xamuñu gan gi gan gan gan la mu ne ko gan googu de sëñ Tuubaa mi jublu weeru koor daan weeru koor la sëñ di wax ni su ñëwee su feeñee nañ ko teeru bés bu set ñu togg ay ndogu di ko ko yët loolu la ma ku baax ki di junj loolu ba mu amee Cheikh Fall nag yebal la ñoom ñëpp daal di leen kenn ku nekk loo am na loo dencoon na ko génnee ñu tàmbali togg ndogu yooyee ci njaareem ci nekk Serigne Touba Khadim Rasoul ak Cheikh Ibrahima Fall loolee nag mooy dox ba fi ba fi Serigne Touba jógee sëñ Mourou Moussa Fall Mbacke nekk fi Cheikh Fall di ko di ko yët ci diir bu gàtt mu jóge fi sëñ Moudou Moustapha Fall di ko toggal sëñ Moudou Moustapha Mbacke loolu mooy dox ba bii fi mu Moudou Moustapha Fall jógee sëriñ Cheikh Fall Baye góor di ko togg di ko wér sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma noonu la nekke woon ba ni mu ko jotee sëñ Mbacke soxna loo ba yàlla dogal sëñ Mbacke soxna Lo jóge fi sëriñ Cheikh ndigal ne fi di ko togg ndog yi di ko wér sëñ Mbacke soxna Lo ba jóge fi mu ko koy wér sëñ Moustapha Ndiagne loolu mooy sabab ndog yi nga xam ne mooy ndog yi kër sëñ Cheikh Fall góor di ci soññ mbooleem Baye Fall yi di leen xamal ni lii du ndigal loo xam ni dafa bàyyeekoo ci Massamba wala ma dem Demba ndigal lu bàyyeekoo ci Serigne Touba la ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall. Baye Fall bu nekk nag war a xam ni weeru kor bu jotee la ko war mooy lépp lu mu am mu dagale loole lépp indil ko Serigne bi ñu togg ndog yi yut ko fi nekkal Serigne Touba loolu moom Baye Fall bu nekkoon na ko fànnoo ndax ak Baye Fall kat maanaam euh, ndigal la. ndigal la la la loo xam ni suñ ko suñ ko ko waxee da ko war a jëfee muy togg ay ndogu joxe addiya sax ci ndigal te mooy tay tere loolu daal moo jëkkee Baye Fall amuñ ci lenn loo xam lu nekk du loolu ñu ngi siyaar baaxit sëriñ sang Fall mu sëñ Cheikh baay Baye góor mi nga xam ni moom lañ toogal moom doomi sëñ Cheikh Fall Baye góor la moom tamit waaw di ko jàmbaare ci kër sëñ Cheikh Fall gii ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam loolu te wér ak cërëm barke sëñ Tuubaa seera loolu daal moo doon sama bés togg ndog yi. ah moom kon daanaka li ma doon wax lépp sëñ Talla wax na ko kon ni nga ñaan nag ñu dugg ci weer yi ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu baax na jërëjëf. ndog yi lii sababam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall lañ fekkoon mu di ko def kii fekkoon bàyyam sëñ Cheikh Fall bàyyam ko di ko def di ko bàyyam sëñ Cheikh Fall bàyyam def def a def magam sëñ Mourou euh, ba Moussa Baye góotu ko def bi mu fi jógee itam moom it mu taxaw ci di ko togg def ci li ci war lu mu ci mën jomam ak kàttanam ak léppam lépp lu mu ci mën rek ñu koy def ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi maam si Ibrahima Fall ak si Fall Baye ñu di ko ñaanal mu yàgg lool ndax da koo yokk wàññiwul ko loolu daal lañ ci xam loo xam ni ñu ngi koy def loo xam ni ndax bis bu set dina rey ñaar fukki gàtt ajjuma ji dina rey ñaar téeméeri ginaar te boolewut ak bokk muy jox mbàkke mbàkke yi ak ñeneen ñi fi ñëw ñoo xam ni dañuy wut ay ndimbal ay ordonnances yu demee noonu te lépp ngir yàlla ak yonent bi jëm seen sefaan ak bàyyi góor ñi ko soldaaru borom ndigal loolu li ko andi mooy la andi woon turu Cheikh Ndigal indi woon turu Cheikh Fall Baye Góor andi woon turu Lamp Fall du yaay jékki-jékki rek duppee ko sa bopp waaye taalibe yi ñooy gis saw doxin lu mu nuróol rek ñu nuróole la loole ndax sama wayjur yi Cheikh Ibrahima Fall la tudd waaye nag jëf moo tax ñu koy wooyee Cheikh Ndigal Fall ak Gaynde Xelkom kon tamit soldaar gi li koy indi rek mooy jëf gi ni jëfal sëriñ bi wala boog bëgg gi ni bëgg jëfal sëriñ bi ndax ñun defaguñ dara bu doon nawet la ñu ne ci ruuj rek lañ toll kon yaakaar naa dañuy doog a tàmbali waaye xaajalu guruñ bay àggal loolu nag ñu ànd ko mbokki taalibe yi waaye loolu li koy dëggal mooy sëriñ bi ndax keroog bi mu ñëwee Sam Fall bis jóge Daaru Fall rëdd mbaar mi mu koy wax fu bari ma ma ziar ko bay dem mu ni ma xeekaay ma ñëw mun ma yaay soldaar bi man ko ah wax nañ ko de mu ni na fexe ba mbaar mi bu la ci kenn man loolu nag yàlla def ko mbaar mi ñu ànd ak mbokki taalib yi ba kenn mënu ci kon loolu yaakaar naa bokk na ci li gën a jëmmal soldaaru borom dëgër gi soldaar rek mooy koo xamante ni day takku rek ngir joxe bakkanam joxe alalam joxe njabootam ngir am réewam waaye ñu nit dañoo takk joxe suñu alal joxe suñu bakkan joxe suñu lépp ngir sëriñ Touba. ndogu li fa mu juddoo mooy njaareem niñ ko ni ko mag ñi di nettalee bi nga xamante ni Serigne bi weer wi teru na moo woolu Cheikh Ibra Fall ni ko dama bëgg nga seen ma weeru koor yi keroog nee nañ Cheikh Ibra bi muy dem mu ngi ànd ak mag ñi bi mu àggee Serigne bi ni ko damay am gan te damaa bëgg bu dikkee nga ganaleel ma ko. nee na bi ñu jógee ci kër sëriñ bi ñëwaat ba kër Cheikh Ibrahima gi nga xam ne moo nekk njaareem di Madinatul Munawwara màkkatal mu karama dañ koy wax makka looy looy na Cheikh Ibrahima daan ay yaaram mbay lu sëriñ Tuubaa wax ñu ne ko nee na daay am gant daa bëgg nga séentul ko mu ne yaa ah, leen sama sama sang bi ne man rek maa ko dégg nee na weeru koor day ñëw te daa bëgg ma toggal ko ay dab foofu la ndogali tàmbalee Cheikh Ibrahima daan togg fukki ndab ak ñaar daan ko yóbbu kër sëriñ Tuubaa ginnaaw bi mu fi bàyyeekoo nag sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall taawam bu tedd ba daan ko togg di ko jox Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke. waaye nag sëñ Cheikh boo gisee ñu ñëw fii Darou Khoudoss sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Moustapha Fall moom moo jëloon taawam ba sëñ Cheikh Fall Baye góor bi nga xamante ne sëñ Moustapha jóge na fi nee nañ mu boole ko ak ay rakam. ñu ñëw sëñ sëñ Modou Moustapha Fall dem jébbalu sëñ Fallou jël sëñ Cheikh Fall Baye Góor yóbbu ko ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde faatma loolu moo waral ñun ñu indi daara Xudoos ndogu bi fi sëñ euh, sëñ Seex Fall Baye Góor daan ko togg daan ko jox sëriñ Seex Gaynde Fatma bi fi sëñ Seex Gaynde Fatma jugee mu koy togg di ko jox sëriñ Mbàkke Madina bi nga xamante ne sëñ Seex Fall jugee na fi boobu xalifa bi ko njëkk a wuutu sëñ Moustapha Baye Góor la la tudd moom benn at rek la fi def daan ko togg daan ko yóbbul sëriñ Mbàkke Soxna loo sëriñ Seex Ndigal mi daan togg ndogu yi moom it di indil sëñ Mbàkke Madina loolu mooy sabab si nga xamante ni moo waral waa kër Serigne Cheikh Fall Baye Góor di jël seeni ndogo di ko indi kër euh, Daaru Xuddoos waaw seen kii ñu yaakaar muy Serigne Cheikh Fall Baye Góor way juróom Cheikh Moussa Fall moo ko jëloon jox ko Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ba noppi daal di wëlbatiku moom jébbalu ci xalifa sénéral de mourides booba Serigne Fallou Mbacké moom moo fi nekk loolu moo waral ñoom seen ndog jëm fee suñ ndog jëm fii waaye nag lépp rek nañ xam ne Serigne Touba rek moom moo ko waral waaw fii topp rek Serigne Touba tax daa tolloog yëfi moom daatub garab la dàtt bi nag mooy sëriñ bi daa dem ba ca kaw rek bànqaas bu ne jëm fenn waaye yëpp rek ci ron gi lañ so mi sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra waaw <clears throat> ñun fekkuñ fi sëriñ Cheikh Fall ci saayir waaye li liñ dégg ci mag ñi dañ bi ñuy defar jumaay ji ñu jàkkaar lool nga xamante ni <clears throat> sëñ Fallou dafa waxoon Cheikh sépp nañu gasi carrière nee nañ sëñ Cheikh Fall ànd ak mbooloom ñuy gasi carrière keroog nee na bi ñu àggee dafa wax mbooloo mi ni leen toog leen ñu toog moom mu am fu mu dallu ba mu dalloo ba xëy mu naajee ubbi lool naajee jug lool nee na ñam àndaloon ci ay kilifa sa dañ yaax ah, moom de sëñ Fallou ñuy liggéey la ba noppi mu xaw a naajal nii bi mu jugee daa rëdd aw rëdd leen gas leen fii keroog ca mag ñi am na ñoo xamante ne dañoo xaacu ni fii sëñ Safa rëdd bu fi bu fi carrière génnee ñu naan sàngara ñuy gas di gas di gas di gas ba carrière génn nee na ñu andi ko fii dajale ko tubaab bi nga xamante ne moo yoroon liggéeyub jumaa ji bi mu ñëwee xammi wut jalub suñ seefaal xammi wut jalub beneen seriñ daa wari jale ba gis ab jal xool xeer wi wax sëñ Fall ni ko xeer wii day moo mën a téye sooroor bu mag bi bi sëñ Fallu laaja jal bi ñu ne ko sëñ Seex Fall baay bu góor dégg naa ci la ko sëñ Fall wax baay bu góor ñi kon loolu moo waral baay bu góor ñi sëñ Seex ndigal tuddewul boppam ndigal waaye nag nangu ndigal moom moo tax taalibe yi tudde ko ndigal nee nañ tamit gaynde xelkoom gi li ko indi biñ demee xelkoom sëñ Saaliu santaane xelkoom mu mënoon fa lool loolu moo waral gaynde xelkom bi nee nañ mag dikkoon na ci sëñ Moussa Bassirou sax ba koo tudda gaynde xelkom mu ne ko ah kon suñ doom ja na ko Cheikh Fall kon ñun nañ jël segg gi kon loolu moo waral gay moo waral baay bu waaye lii moo waral gaynde xelkom waaye moo waral ndigal ba sant yàlla ak sëriñ bi maa ngi sant it mbokki taalibe yi ma àndal ndax eh, dañuy wax ni walla fi dañuy léeb ni feccum liir bu neexee woy jur waa jàpp ca wagg kon ñun buñ mënee jëfal sëriñ bi wala ñuy jéem a jëfal sëriñ bi am ci dara ginnaaw yàlla ñii rek la ñun duñ ci dara ñooy dajale seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm dajale seen i ñaq ñu nu koy jox ñu dem ca sëriñ ba kon maa ngi leen di sant ñoom ñii di leen ñaanal yàlla na leen sëriñ tubaa nangul seenu murit yàlla nañ bokk ci taalibey sëriñ tubaa yim nangul seenu taalibe yàlla nañ bokk ci milliardaires yi sëriñ tubaa yi ñii lu ma yéene sama bopp rek yàlla na leen dal ci gàttal ci barkeb sëriñ Saaliw